نفسا بالغاد أتيت به لزاد بسكريا salaamaaleykum suñu mbokku téléspectateur du seen télévision Khass TV euh, gannaaw bañ leen nuyoo ku si nekk sa tur ak sa sant rawatina sénégalais de la diaspora yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel sa su ne si suñu programme. Euh, ginnaaw bañ leen dalalee fii nga xam ne mooy dëkk bu sell bi di Touba Mbacké li ko waral nag xam ngeen ko mooy nit ki euh, ay waxtu rek ñu daal di euh, waajal li nga xam ne rek mooy cant ak màggale 18 safar bi ku tedd kooku di suñu maam Xaadimu Rasuul àndoon ca liggéey ba ak ki nga xam ni mooy suñu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina Lamp ak kilifa diine yi nga xam ni ak ñi nga xam ni yëpp ay mag yi diine lañu woo xam ne àndoon nañu ak ñoom ci xeex loolu nga xam ni mooy jëmmal lislaam waaye tamit dooleel ko ba tey mu waral li nga xam ni mooy màggal gu mag gi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene amal ci ay waxtu yu néew fii ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké kon loolu mooy tax ñu xuus ci ay kilifa xuus tamit ci ay borom xam-xam xuus ci ñoo xamante ni ji suñu àddoo euh, xol yëpp sedd ku ci mel ni imaam Mouhamadou euh, euh, Mbaye léegi ñu daal koy jox kàddu gi rek mu daal nuyoog mbokk téléspectateurs yi waaye nuyoog tamit mbokk taalibe yi nuyoog mbokk jullit yi ñu daal di dugg moom nag si laaj ak tontu yi jëm ci waajtaayu màggal gi bisimilah. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayyidina muhammad saaxibi naasiril xaqi bil xaqi طلعت الحق بالحق من الحق إلى الحق حق حقائق والحق حقه ولا حق يحق بحقه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى bi إلى يوم الدين xaas TV maa ngi nuyu ñëpp li ko dalee ci kilifa gi ba ci ki mujjee ñëw xaas ñaan ni tur bi tudd yàlla na télévision bi mel noonu international ci barke fukki fan ak juróom ñett ci weer safar jërëjëf Oustaz Mouhamed mbay euh, ñu daal di dugg moom si laaj ak tontu yi nga xam ni dafa jëm ci bés bu sell bi bés bu màgg bés boo xam ne ji foo ko takk ci ab daya ci li nga xam ne rek euh, mooy diiney lislaam rawatina yoonu murit euh, weesu na ko kon Oustaz wala imaam Mouhamed Mbaye tey boo amoon kaddu yoo xamante ni ji da koy jëmale ci jëmm ju tedd jooju nga xam ne mooy suñu maam xaadimul rasool nga xam moo ñu rootali woon ñëw ni jaami naan leen géeju leen sangu leen ba nga xam ni fu ngeen romb rek ñoo xam ni set ngeen wicc ci yoon lislaam suñu maam jooju tey bëggoon nañu nga andi ñu si ay kàddu. Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dafa def jom def ngor def gore dafa def jom def ngor def gore moo ni woon xarajtu yawma sabti thamina achara li xidmatil muxtaar fi sahri safar boo déggee ñu naan fukki fan ak juróom-ñett wala ñu naan 18 safar safar weer la baatu arab la weer yi ni janvier amee février am noonu la muharram amee ci arab muy janvier muharram safar moo ci topp kon damay wax ne bu doon ci weeru tubaab weeru safar la le 18 safar la Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul di sant yàlla li jaamu yàlla yi yàlla dafa ne ci alxuraan wa xalilun min ibadiya shakur man yàlla de li ma defal sama jaam yi bari na waaye néew na ñoo xamante ni dañu ma ci sant moom yàlla jagleel ko bés boo xam ne santul yàlla bi mu ñibbisee bisee waaye ci njëlbéenug dem gi la ni bërit leer war a tukki tukki boo xamante ni xamlul azal waraa lay def kenn ay dem ñëpp jariñu bi sëñ bàmbay dem bu doon bëre tey damay wax ne bi muy bàkku lañ ko woo ko ni ko daan nga ki ngay bëreel ba pare am ndam laa ngi sëñ bàmba bi muy départ ci la ko takkal garaatu xaadimu rasul mu ni ci géej gi alamani rahmaanu fi safina bi ànd ni xadimu zal madina waxuma la waaye bi ci gën a gàtt diggante wiri wiri maa yomba jàngal fukki eh, juróom-ñaari at juróom-ñaari weer juróom fan sëñ bambaa ngi ci dëkk boo xam ni geesuwul yem ci doomu aadama amul kumu ni amul kumu ni maanali amul ku ko toggal amul ku ko yakkal du ndox muñ ko jox mu naan mbaamu mu sangoo du yére yuñ ko soppiloo lu dul guddeeg bëccëg subaak ngoon xàmmeewul xar kanami tubaab bi mi ngi bind leeru yonent bi mu ngi bind mbaaxu yonent bi biñ ko laaje sa karaama ndax julli ci géej gi la dafa ni déedéet sa karaama ndax yam ci gaynde gi la mu ni déedéet sa karaama ndax jàkkaarloo ak nag mu ni déedéet lan mooy sa karaama sëñ Bamba mu ni karaamati xattu yaddi li ma yéem daal tey sama karaama muy wéet gi ma wéet doon wéetalikoo bindu xasida yi ma doon bind man sëñ Ahmadou Bamba Xadimu Rasul yaakaar naa i loolu kenn euh, mënuñ koo natable ci liggéey bu mag bi nga xam ni suñu maam jooju liggéeyal na ko non seulement euh, euh, der bu waaye liggéeyal na ko àdduna bi yëpp ndaxte firnde bi tey mooy boo ñëwee fii ci màggal gi fu ne nit a nga fay bàyyikoo ci euh, euh, nationalité wala xeet yu wuute ci àdduna bi ngir teew ci màggal gi wala ñu defe ko fa ñu nekk kon loolu yaakaar naa ni oustaz euh, wala imam Mouhamed Mbaye tey su fekkoon ni dañu ciy def référence rawatina nouvelle génération bi ci ki nga xam ni mooy su suñu maam Cheikh Ahmad Bamba est-ce que jotul ñu daal di ñaax ndaw ñooñu ngir ñu am royukaay bu mel ni moom. ni nga ko waxee léegi dama koy faral di wax naan li ilaa fi pël xurey si naar. ilaafihim olof rexlata séeréer chita il lawbe wa sayfi tukulóor fali yaabudu bambara rabaheza joola bayti tubaab ëllëzi malgaase ataamahum xaasunke min jooin njaago wa amanuhum séeréer min xaw fi soo soose sóoratul koroboro ñëpp rot si nañu Touba li ko ko may nag mooy bi mu àndeek tubaab bi ba dellu si yonent bi ni ko yàlla xamal ne ma ni loo ñaan yàlla defal la ko fi nga jaar ak tubaab bi lan ngay ñaan mu ni yàlla irham jami al wara ya hadiyan a yàlla jéggal naa leen yow mi nga xamante ni yaay gindi way alku gis nga garaat bi ko yàlla takkal mooy tey bu ba tegee suuba da nga gis ay tubaab yu xonk cur ak ni tubaab gëmee service yéen ay bool yu tàng jër te du seen baaxu maam moo xam ceeba ci ne moo xam mbaxala ci nekk waaye dañuy daw di ko yóbbul der bu ñuul ngir kan ci Amadou Bamba Xaadimu Rasul li ko may loolu mooy tolérance tolérance moo amatul tolérance amatul ci góor ñi amatul ci jigéen ñi da ngay gëj a gis góor sawaay foo nekk mun la damaa takk soxna balaa weer wee dellu si wala at mee dellu si nga daje moom mun la sawaay gisuma lu dàq célibataire parce que mënatuñu am tolérance ku mënul taloore jigéen ji nga nekkal sëñ Bamba ñaata tubaab la toloore ñaata nit la toloore ba am li mu am 75 ans la dund boo jëlee 7 plus 5 daf lay jox 12 di 24 heures suba gi 12 heures de temps la ngoon gi 12 heures de temps la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul 75 ans la dund 7 5 12 la Mame Cheikh Ibrahima Fall 75 ans la dund muy 7 ak 5 di 12 moo tax ñoom ñaar ñuy 24 heures sur 24 lampo ngi nee ngay tiim sëñ Bambay guddi gi li ko ko may moom it tolérance ak muñ parce que léegi xale yu jigéen yi itam mënuñu ñoo muñ koo ci gëj a gis mun la damay dem sama kër borom kër ñaari at bu ngeen dellusee da ngay dajeeg moom moo oh, yor benn xale nga ne ko an sa borom kër mu ne delloo naa kon ndayam ak baayam tolérance boobu Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul jàngale nekkul dañuy ñëw Touba pour sañse déedéet nekkul dañuy ñëw Touba pour teg ay cheveux déedéet nekkul dañuy ñëw Touba pour sol ay jeesneer déedéet mais da ngay xool li déparé Europe li déparé Sénégal dëkk yëpp circulation am kenn rek ko waral di borom jumaa ji kon kooku lan la defal yàlla ak lan la muñ ba tax ñëpp mais mais ñun ñu mujjee juddu xamuñ Serigne Touba. mais est ce que mën ngaa xam lu tax nga bëgg ko man taalibe Seex laa taalibe Seydil Xaaju Malick laa mais sànq ba léegi ay woyu sëñ Bamba laa lay wax yi mu way yonent bi tawxiid yi mu def parce que lan moo tax mooy sunu patrimoine la ñun li ko may loolu lépp nag yàlla loose ko ci xolu doomu aadama yi mooy xam la azal waraa la def mooy dafa liggéey benn nit téeméeri nit junni nit ñaari téeméeri junni nit ay millions yi nit jariñu ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ñëpp ci tedd téere yi tedd nañ ci bésam bi menuisier yi nañ ci bésam bi jaaykatu ginaar yi tedd nañ ci pël yi tedd nañ ci nga xam ne sax gëmuñu sëñ bamba boo génnee ci biti defar nañ ay photo sëñ bamba di ko jaay xanaa kon kookoo ay ay ca ñu dem. waaw eh, foofu laay rebondir nga wax euh, junj koo xamante ni ji maanaam euh, dafa nekk doomu nijaay ak doomi bàjjan muy Seydi El Hadji si Sy Maodo ak suñu maam euh, Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ma bëggoon en tant que nga nekk taalibe Cheikh li koy firndeel tey yaa ngi nii teew ci bés bi nga xam ni mooy bésu 18 safar bi ñuy waajal ni ki ay waxtu yu néew a néew a néew a kon loolu firndeel nañ ni mbokk gi càllale gi genn la. diine ji benn la penku bi benn la euh, alxuraan ji benn la tamit euh, suñu yàlla ji ñu nga xam ne moom lañ gëm te ñu kenn la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom lañ jublu tamit kenn la kon ana lan nga mën a dénk ñi nga xam ni ñii dañuy xëcc taf la ñii xëcc fee te mag ñi ñoom loolu yëpp dañ ko defoon mu fallaaw muy benn bi gën a gàtt kay sama soxna daal bi sëñ Abdou la sama soxna waa njaareem bii la sama soxna ba tey njaarim laa fanaan ñaari fan boo duggee sama kër foto sëñ Bamba ngay jàkkaarloo parce que loolu mooy gëm-gëmam doomu aadama da nga koy bàyyi gëm-gëmam li may teel ci sama soxna mooy bu may julli bu ma nee allahu akbar gees gis ko sama ginnaaw li mu bëgg mooy dama ñëw fekk ko mu bëgg sëñ Abdou Khadir ba jeex ci tàkk bu may ñëwee Touba di damay dugg xabru sëñ Abdou Khadir vidéol ko ko parce que loolu mooy ngëneelam ñaanal ko ci toog naa ak sëñ Muntaxa yàggul ma toog ak moom ni ko sama soxna taalibe sëriñ Abdou Khadir la nee na nga ñaanal ko cofeelam yokk ci moom lu may wàññi ak lan la may yokk am na tijaan yu dëkk biir Touba gi da leen tere doon tijaan euh, euh, boo demee Tiwaawoon am na murit yu fa dëkk est-ce que da leen a tere doon murit euh, kenn moo moo damay wax ni nit bu vacances ci kër fekk fa jàmm bi muy ñëw mu def ci kër gi une semaine waa kër gi xeexoo war nañoo woo gan gi ni ko kaay kër gi bi nga avant nga fi ñëw jàmm fi am bi nga duggee ci kër gi nag la jàmm jiyee xam nga mooy kan mooy mam maaram moo jur mam matti moo jur Balla Aysa moo jur Maam Mor Sali mam moo jur Demba Xuuréja maam Ousmane Seydi El Hadji Malick mais kon Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul maam Maara mooy seen maam ñoom ñaar ñëpp yow nga dugg si sant mbay ñu lay jox micro ñu ngi lay teral ci barke Serigne Touba yaa ngi ciy am oto ñu ngi lay teral ci barke Serigne Bamba yaa ngi am kër kon yow mi nga xam ne yaa yor relève boobu Serigne Bamba bu amee noonu rek waxtaankat moo moo fa jaar day tàngal xool damay indi xasida bi Serigne Touba way yonent bi mbaa may indi xasida bi Alaaji Malick way yonent bi mbaa may indi xasida bi Baye Niass way ñoom lenn rek moo leen itteeloon mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Baba dafa ni wa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxiida siwa intama ilal jaylaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwaahu aw li siwaahuma min al aqtaabi sëñ Bamba nee na tariqa yëpp ci yàlla lañ jëm am na ñoo xam ne bi ñu déparé Dakar à péage lañ jël ba dugg Touba am ñoo xam ne njaareem la ñu déparé ba dugg Touba kenn ku nekk jumaa ji moo la itteel Seydil Hadji Malick way na ko ne euh, tariqa yëpp ak turuqu kulluhum illa rahmaani muusilatun tariqa yëpp ci yàlla la ñu jugee coow laa ngi ci kay sama soxnaa gën ci jigéen ñi fa la coow li ne danga naan sama soxna moom ma gënal ci jigéen ñi ñëpp mën nañoo d'accord loolu man sama soxna xam nga nu koy wooye sangu jigéen ñi ci man parce que moo ma gënal bu ñëpp defee noonu Sénégal ñëpp dinañ am jàmm waaye boo ne ah sëriñ bi du moroom benn sëriñ laayeen bi day génne fee ni sama sëriñ du moroom benn sëriñ tijaan bi day génne fee ni sama sëriñ du moroomu benn sëriñ xaadir bi génne fee ni sama sëriñ du moroomu benn sëriñ kon ku gën kon yonent bee gën ndax ñun ñëpp yonent bi la ñu am nañu xoolee sunu mag ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam réseaux sociaux yi daal mu ngi noonu doy na waar loolu am na solo euh, li ñu yëkkatee jataay bi rek kenn mënu tudd ki nga xam ne mooy euh, borom bés bi euh, di suñu maam Serigne Touba Khadim Rasoul te tudd ñu ki nga xam ne moo waral sooroon bële di Cheikh Maam Ibrahima Fall Babul Mouridina làmp lan ngay wax ci moom. nee naa la kenn la sëñ bàmba dafa gore wëlbati kilifa du walbati ndab booy lekk ba kaw jën bi xaaj bu fekkee ne am na ñu lay xaar ci biti bu loolu bati ngir ñu lay xaar mën see barkeelu mam sëñ sëñ Bamba li tax mu baax mooy dafa dem ci yonent bi ba jeex tàkk ba ni ma xat mahabbati al muxtaari sayyidina xubbil maxaanina wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaa un lahu abdan xadiman muskaana li sanada sëñ bamba dafa dem ba jeex tàkk di ko may di ko may di ko may donte yonent bi du jeexal bani ko waxal li boole naa la borom branché naa la borom xolam baaxu sëñ bamba branché bi ko yonent bi branché boromam mu dindi branchement moom roof branché imam Cheikh Ibrahima Fall looloo waral laa ilaha illallah rek la xajoo xajoowul leneen laa ilaha illallah Fall lu tax doon laa ilaha illallah Mbàkke te sëñ bamba laa ilaha illallah Fall wax naa la sëñ Bamba bëccëg la moo waral mu julli bëccëg maam Cheikh Ibrahima Fall guddi la loolu tax ñu wax ko lamp baabul muridin tey murid bu ne mën ngaa jàng ci maam Cheikh Ibrahima Fall te laa ilaha illallah bi muy zikkar moom bokkul laa ilaha illallah yi de moom bi mu am kenn doose wu ko laa ilaha illallah bi Baye Fall di yelwaane bokkul ak laa ilaha illallah bi ñuy màjjaale parce que laa ilaha illallah bi ñuy màjjaale yéene ji mooy am lu ñu def ci leket ki boo gisee boo demee ci ay jàng Baye Fall ni laa ilaha illallah am moroomu Baye Fallam bu daanu parce que boobu mu ngi branché wu ci maam Cheikh Ibrahima Fall ndax zikrul ilahi sullamun li raaqi li qadratil hayyi azizil baaxi gis nga ni weñ di xomaatee noonu la xool di xomaatee boo gisee jigéen dem ba amatul kersa lu ko neex def ñaar ñii foo leen dégg euh, nar ñoo am jom mooy ko ku ni sama ginaaw gi ngeen baal ma ci kàddu gi merde laa ci bind koo dégg mu koy wax narta am jom nit day am royuwaay maam Cheikh Ibrahima Fall Fall la sant gis nga tur yàlla yëpp bu ñu naan la zikkar ko 111 lañ lay wax dañ naan la laa ilaaha illallaah 111 laa hawla wa laa quwwata 111 mais maam Cheikh Ibrahima Fall santam Fall 111 la Fa 80 la alif 1 la laam 30 la gore gu mu tax sëñ Bamba dund 75 ans mu dund 75 ans gore gu mu goree tax yonent bi salallaahu alayhi wa sallam bi mu génnee àdduna ñaari at lañ ci teg Aboubacar fekki ko sëriñ Bamba bi mu génnee ñaari at lañ ci teg daa bay maam Sey kon loolu yaakaar naa ne am na solo kon nag euh, li nga xam ni moo jëm ci euh, maanaam euh, message boo xam ne ji boo ko doon joxe tey jëme ko ci askan wi rawatina mbokku taalibe yi ñi nga xam ne ñooy wadd si fii ci dëkk bu sell bi ngir waajal li nga xam ne mooy 18 safar si ay waxtu yu new surtout ñi nga xam ni ñoo nekk ci amee circulation bi maanaam dem beeg dikk bi ban message nga leen di jox. bi ma jox mooy alquran. wa maa min daabatin fil ardi illa ala waxoon na ni bu ne tek nga ni yollu man si dawal boobu ci laay dox man bu may dawal guddi bu ma xoolee tëli bi espace damay daw lu bari lu ma daw guddi daw guddi na 80 laay yem gis nga nit dina yàqamti wërsëgam balor ay doomu aadama balor waale ci bu fekkee ni da ngaa yóbbu ay client war a dellu ndakaaru yàqamti boo yàqamti boo defee accident dootoo dem ndakaaru te yàqal nga ñu nga waroon a jëli mais nga raam di daw nànk mais mënuñoo jël oto gis nga ñi amagul permis xamuñu ko mais ñu jot am permis bi may dem di passé ji boo solee débardeur dañ lay dàq boo demee peñoo sa bopp dañ lay dàq boo cegee sa tubéy ceg daanu la ñu wax dañ lay dàq parce que dañu naan kii amul responsabilité seetlul tëli néew na policier di daw ci yoon ba gis sol comme lii ma sol mu seere la bu defee nii gis nga sol kap dañ lay seere bu defee nii gis na nga sol si vêtement wala lacoste dañ lay seere pourtant yére du dara mais dinaa départ man voyage lu toll ni Podor lay déparé ba Dakar bu dee policier dama arrêté benn lay doon te daf ma yëndu nii doonte du la xam mais ñu dawal ci respect dawal ci dal dawal ci yar waaye maa la gën a baax moteur surtout apéage bi gis nga boo ko jëlee gën a baax moteur balaa ngay génn ci Thiès code bu gudd bi da ngay sofe taxaw temps une heure de temps yi nga fay taxaw boo dawoon 70 da ngay def nànk beneen bi ma leen di ñaan di leen xool yéen sàcc yi li wajillahi taala sàcc yi xam naa ni seen événement ngeen ne mais dama leen koy ñaan rus leen Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul fa mu jaar la mu daj yéen laay waxal xam naa ni ku leen ñaan ci njekk di ngeen ko may ngir yàlla ku fi ñëw ñett lay indi lu mu jëndee sëritie lu mu dën dundee ak lu mu jox ku tedd si Amadou Bamba Xaadimu Rasul mbaa lu mu jox njabootam boo jëlee li ci poosam yóbbu nga àq yóbbu nga liggéey baam sëñ Bamba Xaadimu Rasul ak li mu dajak fi mu jaar yow nga ni bi ngay ñëw intention sàcc rek nga am boo dee dox sa soxla nanu bàyyi nit ñi li ñu yor ñu dugg ziyaare te ñuy am tolérance te ñuy jéggalante ndax sëñ bamba lum am tey jéggale moo ko ko may irham jami al wara yaa hadiyan radaa koo koy sëñ bamba kon nag euh, mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ki ñu dalaloon tey euh, si seen euh, télévision Khass TV muy télévision askan wi muy imam Mouhamed mbay ñu ràññee lool ci petit écran yi rawatina si télévision bi di Sen TV kon dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal tamit yàlla may ñu fekke ay màggali màggal yoo xam ne ji dinañ jàkkaarloog moom def ay waxtaan yoo xam ne ji dina jariñ jariñ askan wi waaye tamit dina jariñ ñi nga xam ne surtout ñooy nouvelle génération bi di ndaw ñi xam ne ñooy yaakaar réew mi ëllëg ñu ngi lay sant di gërëm imam jërëjëf maa ngi ñaan euh, télévision bi yal na yàlla yëkkati ko wa rafanaahu makaanan aliya ñi nga xamante ni ñoo fi liggéey tam yàlla may leen teraanga euh, yàlla sutural leen ci barke weer wi nga xamante ni mooy weeru safar di weeru ñaar di weeru euh, Cheikh na Ahmadi Tidiane euh, Chérif radiallahu anhu le 18 safar di weeru Maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul 18 safar ñaan yàlla salaam ak sutura yàlla nañu ko yàlla defal borom kër gi yàlla na yàlla sàmm ko aal ko yàlla lafal ko ci cat ba naala mi mu am yëpp yàlla daal di ko ko defal taqabbalallahu rabbuna si daawatana mimman uhibbu bihi bi jaah yaasin salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu غفرت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا يا وابح يا الله